kon ndaje mii nga xamante ni moom moo ñu dajale tey dafa di mbir moo xamante ni lu yàgg la ñu toogoon ci doon ci xalaat di xool tamit ndaw réew mi di xool tamit eh, nit ñi ni ñu découragé désespéré bi bif bi am ci ci ndaw yi nga xamante ni xalaatatuñu sax ba jël seen bakkan sàmm ko di dugg ci ndox mi nga xamante ni mar day yi ndox amul bànqaas pour dem fan Europe mbirum agression yi ñëpp xam nañ ni sonn nañ ci insécurité amul da ngay toog sa kër sax mën na la fa fekk rey la ngir lan dëkk boo xamante ni nii day taal yi lépp euh, jaxasoo te ñu ñëpp ñoo ko bokk war koo war a mën a ñogal accident moto jakarta yi aussi bon loolu xam naa ni dinañ ma dee ne ma waroo ko wax waaye moto jakarta bu demee ba bari ci dëkk bi ñu ñi liñ ci participer kenn xamul nu mu dey parce que aw ma woon pexe